mbokk internet univers info tv dal leen ak jàmm ci xew-xew bés bi ñu dikk ak yéen ci influenceuse boobu lee di wuyoo ci turu bu Dash ñu gën ko ràññee ci réseau sociaux yi rawatina Instagram ak TikTok xibaar yi xamle moo di moom na Nabou Dash moomulee dafa lancé benn message jëmale ko ci ki nga xamante ne mooy ex jëkkër ji di ko xamal ni fu mu nekk nii du nangu benn yoon a góor di ko tuuteel wala di ko ñàkkal fayda ba tax na naka nee na ko comme que xoole na ba mu rëcc ko na toppatoo ki nga xamante ne mooy aawam balaa mu koy weer ni géej fi mu nekk nii naka bu Dash dafa daal di tourner boobu boobulee di jëm si beneen sëy bu ñu fàttalikoo tuuti rek ca laay fam yu njëkk ya mu doon duggal mi ngi doon wax ni moom ak jëkkër ji sekk ñu bàyyante ba utal ko benn tur ku ko national waaye itam da doon def actus de femme di joxe ay conseil euh, pour jigéen yi gëna tëye seen sëy boo xoolee ci commentaire yi ñu ngi gis kii di Adamo dal di wax ne moom bu Dash da ko bett torop ndaxte yaakaaroon na ni ak nu mu mënti na bu Dash dafa waroon na suturaal ki nga xamante ne mooy ex jëkkër ji di monsieur Fall